ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan إلا الله ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في هذه الجمعة في هذه الجمعة نتحدث معكم ونتناول معكم وصية من وصايا الشيخ الخديم يقول الشيخ أحمد الخديم دين بهدى الإسلام فهو دين والله يعلي من به يدين yaa saaxi laa tafal li xayrillaahi shay'an fataaka fihlu xumrillaahi ya axlis lahu lilma maa al amaali bi adabin yaadi yaatiika bil amaali tub min siwa maa lam yakun ridaahu wal toxna bi say say illati yardaahu sallil faraida maa tawaabihi muraaciyan naaji rasuli taabii hibba jamihi lmuminina naawiya xayran lahum takun li xayrin xaawiya wala simu rafda allati laa yanfaxu wa baadiroo لنفع حيث يقع أيها الإخوة إن مثل هذه النصائح والإرشادات هي التي توجه منهج الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطريقته في الحياة وإن التمسك بها هو جسر العلاقات فيما بيننا وبينه اللهم اهدنا فيمن هديت وتولينا فيمن توليت واكفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك mbokk yi fan yi weesu yépp ñu nekkoon ci di waxtaane loo xam ne lu am solo la ci àdduna si muy li nga xam ne mooy tax suñu àdduna jaar ni mu war a jaaree mooy doon mooy tax li nga xam ne moo doon li nga xam ne itam mooy tax suñu dund neex ni mu war a neexe tey nag ñu indil leen benn dénkaane boo xam ne dafay mel ni dénkaane la boo xam ne Serigne Touba jëm da jëmale da koo jëmale ci mboolem kuy doomu aadama rek rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo mu mel ni dafa dañoo bëgg a soññ ci wóllëre ba nga xam ne dogu woon nañu ko suñ digganteeg suñ borom ba nga xamee ne bind nañu te bind ba mu bindee ruu yi te am loo xam ne moom la waxoon ak ñoom mooy laaj nu ndax ma ndax duma seen borom ñun ñëpp ñu àndandoo woon waaw kon waaw joojee nag la bëgg la bëgg ñu des ca gën koo sa gën koo sàmm gën caa taxaw loola nag lay lay tax ñu man ko la koy dëggal lay dëggal waaw joojee ak lay wane firnde ja mooy ñu nekk ci li nga xam ne moom la bëgg ñu nekk ca te bi ci njëkk mooy nañu diine woo nañ def suñ diine muy lislaam lislaam nag ñu xam ne baat bu yaatu la mën nañ cee jublu baatub lislaam jii nga xam ne moom lañ xam muy ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi waaye mën nañ cee jublu itam mboolem yi nga xam ne moom la suñ borom wàcce woon yooya nag xam nañ ne diine yépp suñ borom dafa mel ni bi mu bindee doomu aadama yi dafa am contrat boo xam ne da koo signé ñoom contrat ba nag mooy ñu nangul ko ne mooy suñ boroom bu ko defee nag nangu itam li nga xam ne mooy jóge ci moom loola nag ngir ñu def ko mooy ñu ñu diine woo diine ji nga xam ne moom la bëgg ñu diine woo ko ñu xam ne contrat bi nag ñëpp ko bokk signé ñoo bokk itam nuñ koy defee waaye xëy na lañ ñuy liggéeyaloo moom mën naa wute waaye xam nañ ne baat yi nga xam ne moom la suñ borom moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi muy as julli ak asaka ak woor weeru koor ak ak aj màkk yooyu yëpp ak nangul suñ borom ne mooy suñ borom yooyu yëpp day ci diina yi jiitu woon yëpp itam am na ci ndax suñ borom moo nu wax ne wama umiroo illa li yaabudullah muxlisina lahu diin hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakat wa dalika diinul xayma waxaat ni itam ne les yaa ayyuha alladina amanu kutiba aleykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqoon mu mel ni kon mboolem baat yi nga xam ne moom lañ miin ci lislaam moom itam suñ borom moom la digaloon ñi jiitu woon te nekkoon ci diine ji nga xam ne moom la bëgg ñu nekk ca mu mel ni kon xëy na defin wi mën naa wuute ndax contrat bi moom benn la liñ ñu sant moo mën a mooy wuute léeg-léeg ci defin wi waaye moom contrat bi lenn la liñ ñuy defloo itam lenn la kon mu mel ni nag suñ tuba suñ tubaa day fa ñuy sant ne ñu nañ def suñ diine muy lislaam diine joojee nag mooy diine ji nga xam ne mooy ju dëggu ndax mooy diine ji nga xam ne ku ci nekk ku nekk suñ borom dana la kaweel dana la jàppandal say mbir ndax suñ borom moo wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haysu la yahtasib kon mu mel ni lii tax ñu nekk ci diina ji mooy ñu nekk ca te nekkal ci suñ borom te mu doon lu dëggu ci ñoom ci ñun mu ne nag boo demee ba dugg ci diina ji ba nga xam ne yaa ngi jëf li nga xam ne moom lañu sant nga war koo def ci diina ji mooy la ngay def na nga fexe ba bul kenn tax nga def ko ku du suñ borom nee na ndax boo ko defee keneen boo ko defalee keneen ku du suñ borom wala nga am kenn lenn loo ca fas lu dul lu suñ borom dafa mel ni koo xam ne am xelam dafa neexut bu mboole ca nag doon ab fokkat ku xelam neexut ba nopp mboole fa fokk mboole ca doon ab fokkat nag yaakaar naa ne jëfam du sori kon nee na nañ doon loo xam nañ nañ nekk koo xam ne li ñuy jëf ci diine islam day wala li ñuy def ci ngir ndigal yi nga xam ne moom la suñ borom digal na doon ndigal na doon loo xam ne suñ borom rek tax ñu ko def te li nga xam ne ne diina ji itam ngir nga xam ko faaw da ngay jéem a xamlu mu ne nag loolee mooy kon jëf xam-xam boobee ngay xam ngay xamlu ak jëf ya ngay jëf nee na na nga ko na ko booleeg am ànd ak i teggin akub yar ndax loola xam-xam ba lu mu bari bari jëf yi lu mu baax lu mu baax baax te àndut ak teggin nee na jëf jooje mën naa bañ a àgg fa nga xam ne fa nga ko bëgg mu àgg fa mën naa bañ a daje itam ngërëmu suñ borom mu mu xamal ni itam ne suñ borom mi nga xam ne moo bindu doomu aadama te xam na ne doomu aadama ku doyadi la ndax moo ko waxal boppam waxul xal insaanu daifa kon xam na ne doomu léeg-léeg mu ay rëq-rëq dal mu def ko léeg-léeg ay njuumte mu def ko waaye nag wutal nañu bunt boo xam ne su ñu defee njuumte wala ñu def ay rëq-rëq ñu jaar ca mooy ñu tuubal ko delluwaat ci moom fas yéene itam duñ delluwaat ca loolee nga xam ne moom lañ defoon ci ci te doo teguwut ci ak joon ndax loolu nee na mooy li nga xam ne mooy bunt bi ñu suñ borom bindal ubbil muy suñ defee loo xam ne bokkut li nga xam ne moom la bëgg ñu def ko ubbil nañu buntu tuub bu ñu bu bu nekkee ci li nga xam ne moom la ñu sant itam ñu nekk ci am na bunt boo xam ne moom la ñu def moom la ñu ubbil moo xam mu doon mu doon boo xam ne boo ca nekkee ba tey dana tax nga gën a sax ci li nga xam ne lu baax li nga nekkoon mooy sant boo dee sant lu baax li nga nekk day gën di yokk boo dee tuub itam safaan bi nga defoon suñ borom dana koy jéggal mu ni kon suñ borom wutal nañu ay buntu yoo xam ne danañ dana tax ba li ñuy def ci mata ci mata di lépp ak li nga xam ne ñu ngi koy def xëy na te tegu ci yoon te bëgg mu sax looy def lu baax te bëgg mu sax da nga day doon da nga cay da boole ak cant sant suñ borom kon loola suñu borom na dimbale ci mu sax bu dee bu dee bu fekkee dañoo def itam loo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la suñu borom la ñu cay dimbalee mooy ak te tuub googu itam mu bañ doon loo xam ne waxi làmmiñ rek lay doon waaye day ànd ak ak pas ci fas yéene doo ciy delluwaat mu ne itam ndigal yi nga xam ne moom lañ suñu borom digal te bu ci gën a rey muy julli. nee na nañ fexe ba di ko def ci waxtu yi nga xam ne moom lañ ko suñ borom sant di di ci boole itam duñ jëm rek ci nag ci julli yi nga xam ne moom la ñu sant muy tisbaar takkusaan timis gee waaye naafile yi nga xam ne moo war a jiitu naafile yi mooy war a jiitu farata yooyu itam nañ ci góor di ko def te itam nag buñ koy def nañ ko defee ni nga xam ne ni la ni la ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sante mu mel ni lislaam doonut loo xam ne da nga ciy doxee sa xam-xam sa gis-gisu bopp doo ci doxee itam sa bëgg-bëgg bopp waaye danga nga ciy doxee ni nga xam ne ni la ko suñ suñ borom sant mu ne itam war nañoo nekk ñoo xam ne dañoo war dañoo war a bëggante képp bépp jullit buñ gis rek nañ ko bëgg yéene ko itam ab yiw ndax loolu mooy tax nee nañu amu yiw loolu mooy tax itam ñu ñu ñu tegu ca fi nga xam ne moom la suñ borom bëgg ñu tege fa muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xamal ne jullit du nekk jullit mukk bu dëggu lu dul ne dafa bëggal boppam dafa bëggal mbokkam li mu bëggal boppam mu ne nag am na loo xam ne mooy taxawaayu àdduna yi nga xam ne moom ngay taxaw ci àdduna si boo ci nekkee am na loo xam ne mooy gaar sa kanam lay gaar sa kanam nag bu dee lu loo xam ne lu am njariñ la nee na na nga góorgóorlu ci gaaw def ko bu dee lu amul njariñ itam nag na nga am fulla ju toll ni bàyyi ko fa njariñ nag mooy lan njariñ ak bànneex nag dañoo xaw a jegee te bokkuñu bànneex moom loo day doon dafa doon loo xam ne ka nga ko seqal wala ña ko seqal rek yéen a koy yéen a koy bokk waaye njariñ nag moom dafa doon loo xam ne luy matale doomu aadama yépp lay doon kon nee na lii nga xa lépp loo xam ne gis nga mu njariñ la nee na nga góorgóorlu ci def ko lépp loo xam ne itam gis nga ne du njariñ njariñ nekku ci nee na nga am fulla ju toll ni bàyyi ko fa kon mu mel ni jox nañu ay aw yoon woo xam ne maanaam lii dañuy woon dañuy won ne Sëñ Tuubaa tëral na aw yoon wu wér a wér ci ci àdduna ci nuñ ci war a doxe te tey danañ ko gën a xam nag bu ñëwaatee ci kanam tuut ci ci ajuma yi di ñëwaat insha allah kon mu mel ni ndi ndénkaan yi nga xam ne moom lañ sëñ Tuubaa di dénk ak ak labiré yi nga xam ne moom la ñuy jox mooy li nga xam ne mooy leeral yoon wi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tegu woon te bëgg ñu tege ca loolu mooy wane itam ne dun dundinam nii la woon loola nag mu mel ni kon ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo jàpp ci yoon woowee nga xam ne moom la leeral jàpp jàpp jàpp ci itam ci doxin woowa nga xam ne moom la doon doxe mooy li nga xam ne moo nuy lëkkalee ak moom moo nuy mooy doon loo xam ne itam mooy mooy mooy doon buum gi ñu gi ñu takk ci moom kon ñu gëm jéem a góorgóorlu ci loolu yàlla nañu suñu borom dimbaleel boppam ndax moom rek moo am dimbal te mën a dimbali yàlla nañu ko defal allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salatan tamxu biha kulla ma sadara minna mimma yuxaalifu ridaka min waqti wiladatina ila wafatina wa kaffir anna tabi'atina wa duyuunana wa kulla ma wajaba alayna laka aw li xalqika ijmalan wa tafsila wakfina bi jaahihi fihla kulli ma la tuhibbuhu wa la tarda hatta nalqaaka radiyan mardiya amin ya rabbal alamin mbokk yi ñi ngi ñaan suñ borom mi nga xam ne moom mën te sañ te am kàttan nañu dimbale ba suñu réew mii nga xam ne mooy senegal suñ borom gën fee wàcc jàmm gën fe wàcc itam ay xéewal yoo xam ne ñu doy ba duñu ba duñu dara loo xam ne luy naxal suñu àdduna dana ci am yàlla nañu dimbali itam ba nga xam ne suñu kilifa gi nga xam ne moo nekk suñu kanam muy Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne yéenee a ko def ci lislaam mu def ko ci definu kawe njortam tam tam àndatu tam bokk bokk loolu ak képp koo xam ne yéenee na ko ko yàlla nañu suñu borom taxaw yàlla nañu suñu borom sàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allah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 dalika fadlullahi yutihi man yashaau wallahu zul fadli azim mathalu alladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha ka mathali alximaari yaxmilu asfara bisa mathalu alqawmi alladina kadabu bi ayati llah wallahu la yahdi alqawma alzalimin qul ya ayuha alladina amanu in ya ayuha alladina haadu in zaamtum annakum awliyaau lillahi min duni nnas fatamanawul mawta in kuntum saadiqin wala yatamannawnahu abadan bima xaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin qul inna almawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum thumma turadduuna ila alimi alxaybi walshahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu allahu akbar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 dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun fa ida qudiyat alsalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadlillahi wadkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun wa ida ra'aw tijaratan aw lahwan infadduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul maa inda allahi xayrun min allahwi wa min altijara wallahu xayru raasiqin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 assalaamu aleykum.